salaamaaleykum télévision Futur Média di leen ziar rafetlu teewlu gi benn waxtu moom moo jot xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci fexe ba wàccoonteeg ak ak yelleefu doomi aadama ak lépp li liñ ci wax ci àdduna wërngal këpp Sénégal mi ngi ci yoon wu baax bi loolee mooy gis-gisu ministre bi ñu dénk wàllum biti réew moom Amadou Ba euh, nekkoon tey jile ci suba ci ubbiteeg session conseil des droits de l'homme de Nations Unies euh, fii ci Ndakaaru euh, coowal suuf ca rawatina ca peggu géej ba ñu yëngatu ci mbayum dër bi nekk foofule Eh, di joxoñ baaram tuumal magistrat yi nekk fii ci Sénégal ni dañoo bëgg a jël seeni suuf eh, te du ànd ak eh, ndàmpaay wala sax ñu ut jàngat xool yan njeexital la mën a jur ci wàllum alam gi mu di benn terrain bu ëpp ñeenti hectare bu njiitu réew mu jëloon jébbal ci magistrat yi di nga leen dégg ci kanam tuuti ci biir xibaar yi ca Koungheul moom ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci taw yu méttee métti ànd ak ngelaw ak càllaweer fan yi la weesu ñu ca bëri ñu ngay nelaw ci mbedd bi ba tey ñaari fan ginnaaw si bëri na ay nit yoo taxaw di leen dimbali jox leen lu ci mel ni ay jumtukaay wala sax euh, koppar ci jàng mbeek jàngale bi ubbi tey jàng tey dañ koy wax boobu ba léegi am na diwaan yoo xam ne jëmalaguñ ko fa lu ca mel ni Sédhiou foofee nag élèves ya ca boppam ñoom la ñu gisagul mu di lu métti loolu président conseil départemental ba muy njaax muy ñaax kon waajuru ndongo yi ñu jóg ci ci wàllum njàng boobule sax dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti ak suñu gan di Dame Mbodj moom di secretaire général bu CUSEMS bokk ci G20 euh, yëglu jamono ji ak euh, benn grève bu ñuy waajal mbokk mbokk yi loolu tënk la ne suuti ñu yaatal ko. nuyuwaate ba noppi mbokk yi bànqaas bi nekk ca Nations Unies mbootaayu xeet yi di conseil eh, bi ñu dékk xeex ak ak doom doomu dama door nañu ay liggéey eh, fii ci ndakaaru eh, di ci waxtaan ci ay ponk yu bëree bëri mu di fii ci Afrique ci jamono joo xamante ni dañuy weccante kon ay xalaat di ay saafara ci ay jafe-jafe yu bëree bëri lu ci mel ni njeexital yi kon changement climatique di am fii ci réew mi rawatina ci wàllum aalam gi ak lu ni mel yi ñu nemmeeku muy ñàkk tolloo la gi ci digg diggante doomu aadama yi ak wàllum migration loolee lépp ñu cay waxtaan Amadou Ba di ministre des affaires étrangères moom nag jàpp na ni Sénégal mi ngi ci tànk yu baax ngir euh, fexe ba wàccoog lépp lu ñeel ak ak yelleefu doomu aadama dañ koy déglu moom euh, Amadou Ba ci micro Maguette Souare Diallo. Sénégal na xam nañu taxawaayam ci matière droit de l'homme maanaam àqu ak doomu euh, yelleefu doomu aadama yi. Euh, sunu réew moo ko jiitee ci ñetti at yu weesu ñu ñëwoon fii nag muy guléet ñu ñëw ci réewu Afrique yi di fi defaree réunion bu mel nii dañu fi waxtaanee nag benn bi ci wàllu migration la mooy doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi jóge seen réew di dem ci yeneen réew gis ngeen jafe-jafe yi ci am surtout ci Afrique yi nga xam ne dañuy dem Europe di jël ay gaal wala di dem ci anam yoo xam ni anam yu metti la wala réew yi nga xam ne dafa am ay guerre nit ñi di fa génn loolu Nations Unies mi ngi koy xool beneen bi ñuy war a bi ñuy xool moom mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci changement climatique maanaam tey jii nii mbir yi di soppeekoo ci àdduna bi bu ngeen xoolee par réew mu mel ni Sénégal taw bi léegi kenn mënatu ko prévoir ci anam yu leer day yéex a ñëw yi say taw bi bari réew adduna yi aussi yéen a ngi xool musiba yi fi am muy ngelaw walla muy ay yenn euh, xeetu musiba yi nga xam ni jàpp nañ ni ni ñuy dundee ci biir àdduna bi tey moom mu andi loolu donc ñoom it ñu ngi ciy waxtaan. gis ngeen aussi beneen point bi ñuy waxtaanee mooy li jëm ci nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi jëm ci ay internet wala toutes les nouvelles technologies daanaka loolu lu am solo la ndax dafay mën naa gën a yombal sunu dundin ci àdduna bi waaye dina yàq lu bari. dina yàq lu bari ndax bu ngeen xoolee fi nekk ni ñuy xawee sutura yi wala ni ñuy doxalee mën nañ ko ñaawlu ci wàllu moo taxu ñu daje fi pour waxtaan ci yooyu. ñu ngi leen ko doon wax sànq ñi yëngatu ci bayum dër gi nekk ci peggu géej gi rawatina fële ca Sam Notaire ca Géejawaay ñoom ñooy yëglu ñoom nag dañoo mer bay futu ñu ne magistrat yi dañoo bëgg a nangu seeni suuf te du ànd ak ndàmpaay wala sax ñu def ab étude impact environnemental maanaam def ay jàngat xool yan njeexital lay am ci wàllum alam gi rawatina loolee ñuy yëngu ci pàttali rek président Macky Sall moom moo jël daanaka lu ëpp ñeenti hectare ci suuf jébbal ko ñi di magistrat yi ci pegg boobule ñu déglu ci Amath Kourouma moom mooy coordonnateur collectif défense littorale bi moom mooy wax ci turu baykat yooyu la ci micro Salif Sow ak Asmalik Diop. ñu ngeen fi gis ñuy ay euh, horticulteurs nekk fii di fi daan seen doole ay at. Euh, magistrat yi ci seen coopérative d'habitat ne leen nañu jóge ci suuf si parce que le président Macky Sall moo leen ko jox magistrat yi daal di def épreuve de force. dal di jël seeni suuf si naxasal ko daaneel garab yi fi nekkoon mooy fi ngeen di gis ne ñu dindi lépp biñ ko dindee nag joxuñu leen ay ndàmpaay. di fàttali le président Macky Sall moom moo waxoon ci conseil des ministres décentralisé ne littoral bi moom dina ci jóg ba ñu préserver ko mais tey dafa mel ni moom moo njëkk a jóg di naxasal littoral bi waxu démb warloo naag jëfu tey. moom mi signé décret déclassification filao yi nga xamante ni nekk nañ fi ay at te alal moo ko fi def. mais ndax 4 hectares yooyu yëpp dañ koy tabax buñ ko tabaxul am na lu ci des li ci des loolu xanaa boog ay responsable géejawaay yu tapis dans l'ombre dañoo nekk ci loolu loolu interrogation la bu nga xamante ni dañ koy lijjanti. géejawaay mu ngi woo bépp doomu géejawaay combat bi ñun ñu ànd ci ñun ñëpp parce que c'est un combat citoyen c'est un combat yeneen béykat yu jubal seen kàddu ñu ngi nekk fële ca Kataba 1 Kataba 1 nekk fale ca Ziguinchor ñoom nag li ñu bëgg mooy matériel uh, bu tukkee ci uh, bopp réew mi maanaam état bi ci kilifa yi uh, rawatina wàllum tracteur ngir gën a mën a yokk li ñuy bay ñoom jamono ji ñu déglu kenn ci baykat yooyu lee nekk ca village bu Makunda mi ngi wuyoo ci turu Chérif Atab Sambou ci micro Boubacar ba béy la amuñu mooy am nañu doole am nañu suuf mais moyen bi rek mooy ñu manqué kon lu ñuy ñaan gouvernement mooy ñu jàppale avec l'appui de l'entente pour ñu mën a am lu ñu bëgg fii suñu amee tracteur à notre disposition wóor na ma lu ñuy béy fii duñ ko mën a góob ki suñu loxo il faut que ñu laaj moissonneuse loolu wóor na ma puisque suuf bi am na volonté bi am na doole bi am na fi waaye lu ñu manqué mooy moyen bi rek donc ñu ngi ñaan gouvernement mu dimbalim ñu ci moyen bi moyen bi daal mooy suñu premier souci. te bu soobee yàlla bu ñu amee moyen mën naa waat ne région bi wala suñu commune suñu commune suñu arrondissement bi mën nañ ko servir en riz dans ce village. ay dawalkatu camion yu bëree bëri ñoom nag am nañu lu leen metti ndax dañoo jàpp ni état bu senegal daf leen di gënalante ak seen i mbokk ya bàyyeekoo ca Mali jàpp nañ ni ñoom amuñu fi sax parking wala amul dara loo xam ne moom mooy yombal seen liggéey boobule ñu ne bu ñu nekkee biti réew sax la ñuy gën a jàpp ni seen réew la ñu nekk fii Sénégal te moo ne fii la ñu bokk Pape Mamadou Ndiaye moom mooy secrétaire syndicat national bi ëmb acteur yi nekk ci transport bi ñu déglu ko ci micro Salif Sow ak Asmal Malick Diop. Mali bi fi ñëw di fi di jël ci poor bi dañoo dañoo ëpp intérêt population Sénégal wala transporteur Sénégal parce que privilège bi Mali am fii Sénégal Mali sax amu ko Mali liñ ko may fii amu ko Mali xoolal oto yi taxaw nii ci kaw route nationale bi yaa ngi koy gis ñun xalaatuñ ko Mali xoolal boo demee Kër Mbay Fall liñ leen daggal foofu. ñun amuñu ko état bi wax na ni dañ koy utal jamñaajo loolu ça fait des années gisaguñ ko chaque jour dañ lay dig ñu mi ngi ci mais waxuma loolu mais tey oto yi taxaw fii man sama oto bu taxawoon fii léegi wala oto Sénégal bu taxawoon saba ko fii dañ koy fekk saba mais xool oto malien ñu ngi taxaw te kenn sabawu leen léegi ñun kon ban pays ci ñun ci lan la ñu nekk boo ko defee soit chauffeur foofu mu taxaw fa lañ koy jàpp yóbbu ko ci giri bi te balaa moo génn day fay su suñu xel xalaatul lool donc tey boo ñëwee ci port bi da ngay dagg benn ticket cinq mille francs Sénégal bi vingt quatre heures lañ ko may Mali benn yoon la koy dagg ba keroog muy génn port bi tant que parewul du ko dagaat ba xëy na Mali dañoo ëpp dañoo dañoo ëpp rendement fii ci Sénégal loolu rek la ñu jàpp ni moom loolu la. boo bi boo ko yoree boo sañoon ci tali bu neex ngay daw mais à l'heure actuelle nii nii nii vraiment ñun dañoo sonn vraiment sonn nañu trop. mais fii li xew yéen ngi koy gis ak seen bés yéen en tant que ay journaliste xool ngeen ko xam nga ni fii li fi xew nii jaaduwul mais réew mi li muy doxee. ëpp na vraiment war nañu utaat boo xamante ni doy na ji Koungheul foofu nag euh, daanaka ñaari fan ginnaaw euh, taw bu metti ànd ak ngelaw bi fi indi ay yàqu-yàqu yu bëree bëri ñu ngi tàmbalee di jàppale ñi nekk foofule ay nit jóg ngir euh, indi leen ndimbal lu ci mel ni matériel ay jumtukaay wala boog sax nag ab koppar lu ci mel ni benn député ca quartier Escale foofee nga xam ne yàqu yi foofu la gën a tari bëri na ñu fanaan ca mbedd ma reportage ca Koungheul ak Omar Ndiaye. ay zinc yu ñuy defaraat ak xëdd la ñu fekk yenn ci ay kër yu ngelaw li xeddi woon seeni néeg ba ñuy dajaat ci Koungheul rawatina ak quartier bi di Escale. gannaaw loolu ci la honorable député Yaya Sow ñëw ne meeku si askan woowu daal leen di indil ay ndimbal jagleel leen ko. métti na waaye ñu ngi sant suñu borom mi nga xam ne moom moo ñu bind. bagage yëpp a yàqu gis ngeen lal yi basan yi ak matelas yi ak drap yëpp a yàqu. ma naa def ay omblon xaalis. am na loo xam ne matériel kaali lañ koy jëndee ak loo xam ne bassan la ak yeneen matelas la la ñu jël ko ñëw jaxleel ko ñi nga xam ne dañoo yàq te dinañ ko àggali fi mu war a àgga yëpp. waaye terewut ba léegi de njaw des naw xambin ndax ñu bëri ci ñoom daanaka démb ak tey ci biti lañu fanaan. maire bi yéen ko gisal bopp amul fu mu dugg ba léegi ñu nga fa ci biti lañu fanaan ñoom donc am na ñoo xam ne dañoo soxla ndimbal ba léegi bu ñu amoon fu ñu leen dugal tey ñu dugal leen mais malheureusement amuñ ko fi ñu ko war a jooytu jooytu nañ ko bon am na ñoo xam ne ba fii tey bu tawoon ñu am problème parce que am na ñoo xam ne nag am nañ ay mbokk comme kële kee moom dem lañ ko déplacé ñibbi la dem la dem la ci guddi gi dem ci ko gën a gërëm di ko gën a ñaax lépp lu mu doon def rek na ko gën a yokk xayma yu mujj yi ñeent fukki kër ak juróom-ñett ñoo yàqule ci ngelaw loolu waaye quartier Escale bi gën a loru ci mbir bi ba léegi ñi ngi leen dem crise ndaxte lu ëpp ci ay poteau lampe daanaka ngelaw yi daf leen a daaneel ñu wutali Sédhiou ak mbirum sage femme boobee nga xam ne ab kankuran moom moo ko songoon ginnaaw atte bi ñu atte nag kay topp kankuran ba di salbe ba moom yoon lim ko teg nii daan mooy ñaar fukki fanu kaso yu muy tëdd loo xam ne tëdd na ko ba noppi sax ak alamaan ñeenti junni moom soxna soosule di sage femme bi nag bu ko bëggee it mën nañ koo dàmp bu ñu sukkandikoo ci attekat bi kookee ñu teg daan muy ba Badara Pabi Diaité moom nag li mu jàpp mooy askan wa nekk foofee ca Sédhiou faaw ñu gën a toog waxtaan ci seen biir xool ci yenn anam la ñuy doxalee seenub cosaan ak aada te du am benn jafe-jafe ay kàddoom Bakary Konte ak Xaali Jaame ñoo ko taataan. autorité bu baax a baax lu dem ci gouverneur préfet euh, lu jëm ci juge bi euh, ak kor corps ñi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk pour kaaraange dëkk bi euh, booy bi tey sant yàlla. askan bi lu ñu doon xaar euh, mooy euh, ñu libéré xale bi kon booy bi def na vingt jours ci prison bi te foog naa ni euh, maanaam loi bi ate bu mu def ni da ko jox vingt jours la ko jox li nga xam ne mooy emprisonnement bi lu ñuy wax ni dañ ko téye vingt jours te vingt jours boobu noonu def na ko daa mel ni xale bi libéré nañ ko ci jàmm. am na amende am na amende vingt mille francs kon loolu noonu dañuy sant yàlla bu baax a baax bi yàlla defee mbir yi dox ci jàmm euh, population bi nekk si jàmm di doon xaar tey bés bi bés bi doon bës bi nga xam ni ne bésu mbégte la pour askan euh, bi nga xam ne mooy askan Sédhiou surtout askan culture mandé yëpp. nañu taxawal comité euh, taxawal ay comité yi xam ni sunu culture sunu aada ñu xam nu ñu koy doxalee. ñu xam ni ñu koy taxawalee pour que mu bañ a am ay débordement problème bañ am ci li nga xam ne mooy suñu culture sunu aada ñaare dañuy faral di nemmeeku ay soxna bu ñuy mucc di ñàkk seen bakken wala sax seeni doom loolee waral ba uh, ca diwaanu Tambacounda am na ay uh, pexe yu bees suñu tëral ngir fexe ba xeex lu ne mel jaareele ko ñu ne ci maam yi ak borom kër yi ci boppam ci ay campagne uh, sensibilisation loole lépp jaarale ko ci benn projet bu ñuy duppee show CRS muy Catholic Relief Service ñi ngànk wàllum paj mi foofee ca Tambacounda yi dugal nañ ci seen loxo bu baax a baax ñu ne noonu lañ koy wéyalee ba yëpp yëpp mucc ayib ak lépp luñ ci euh, mbëbët ñu am ko reportage ca Tambacounda Moussa Omar Gueye sécurité bu baax a dem ci gouvernement. ci ñaari at yu ñu génn seetlu nañu soxna yi nga xam ne dañu daan won lor bu ñu demee bay mucc seen bakkan di rotandiku wala tout tànk yi nga xam ne bu ñu demoon bay judd seen bakkan dafay rotandiku wala bokk ëmb yu teel yi nekk na li nga xam ne dafa wàññeeku li ko waral nag bokk na ci pexe yi nga xam ni projet bi ñuy duppee show waa catholique relief service daal di koy indi ci diwaanu Tambacounda ak Kédougou. terme de mortalité maternelle infantile donc gis nañ les grossesses précoces wàññeeku na trop trop trop ça am nañ ci progrès yu consistant yoo xam ne permettre na aussi tey aussi district jóge fu mu nekk bu Tamba jóge fu mu nekkoon ci en en terme de mortalité dem ci beneen niveau li nga xam ne am nañ ko ci wàllum résultat nan lañ koy toppatoowee ba ëllëg si biir mu gën a mën a jëriñ askan wi ak pexe yi nga xam ne indi nañ ko nan lañ koy gën a wesaaree ba ñëpp jëfandikoo ko nekk na li nga xam ne itteel na lool kii di Maurice Bonan moom mi ñu dénk projet show fii ci Tambacounda ak yi grand maire yi catégorie bu nekk mu mën a jouer jàppale élus locaux yi pour ñu mën continuer activité yooyu projet bi day jeex mais il faut rek aussi activité yi mu continuer ak engagement yi ma dégg maire bi wax na ko sànq docteur je pense que ñi nga xam ne ñoo toogal mairie bu Tamba ak bu Koussanar di bu naa Bounama Kanté ak Aminata Sankharé nee nañ li nga xam ne gis nañ ko ci pexe bëgg nañu ñu yaatal ka waaye itam ba tey mairie yi ci wàllum compétence de wér-gi-yaram ñoom itam ñu gën cee dugal seen loxo Eh, jërëjëf Moussa Omar Gueye ñu wax ci wàllum jàng bi ak li ñu naan eh, ubbi tey jàng tey bëri na ay diwaan ca Sédhiou nag foofu doxaluñu ko li ko waral mooy élèves ya ca boppam eh, la ñu gisul ba tax na kii di président conseil départemental bu Goudomp di ko naqarlu bu baax a baax muy woo waajur yi ñu jóg ci mbir moomule Moussa Bokum lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Bakary Konté. di wax ndaw yi nañuy fexe ñu dem école école ubbi na boo raté une semaine de cours maanaam doo ko doo am. et mën naa am répercussion si si niveau bi mën naa am répercussion également si résultat yi donc loolu moo tax may lancer appel ndaw ñi ñu fexe ñu rejoindre salle de classe yi mu gën a gaawee maintenant aux enseignants di wax enseignants également na ñoo ñu rejoindre salle de classe yi mais xam na ñoom sox ñu ngi fi ñu ngi fi enseignants les enseignants sont tous disponibles ils sont mais lu may ñaan rek ñu apaiser année scolaire bi comme njiitu réew mi nu ngi ko bëggee parce que moom dafa bëgg école sans problème école bu apaisée ñu am année scolaire bu apaisée ñu am résultat également yu baax pour njëriñu Sénégal njëriñu ñëpp. tey amul commune bu département bi nga xam ne conseil départemental euh, tabaxul salle de classe. ren rek trois communes lañ choisir donc ce qui veut que ñu ñu ngi ci éducation bu baax a baax te salle de classe bu tabax dañ koy équiper. donc euh, en dehors même des salles de classe du wàllu éducation ñu ngi également ah, def suñu appui si wàllu santé également loolu pour nga firndeel ko il faut nga dem centre de santé de Goudomp il faut nga dem centre de santé de Samine di nga xam ne conseil départemental yemul rek si éducation mais mu ngi si santé mu ngi si culture mu ngi si domaine. ñu woy ci wàllu woowule muy jàng bi sax ak sunu gan di Dame moom mooy secrétaire général bu CUSEMS authentique bokk ci G20 G20 moom mooy mbootaayu syndicat yu bëri ci wàllum njàng mi ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay di la gërëm di la sant ci invitation bi ngeen ma defal nii tey. yéen waa G20 niñ leen déggee ngeen junj ko am na benn waxtaan bu ngeen amal laataa màggalu Tuubaa gi ndax mën nañoo dégg rek mën nañoo xam lan moo tukkee ci waxtaan boobu le waaw dëgg la G20 ñaar fukki kuréelu jàngalekat ak juróom-benn bi ñu créé coalition bi ci vacances yi euh, bind gouvernement bi dañu bëggoon vraiment gouvernement bi gaawantu pour ñu waxtaanee jafe-jafe njàng bi. ah ñu gis ni kon gouvernement bi dafa bëgg def forcing eh, ndaxte jafe-jafe yi bëri na te war nañoo toog ci saafara ci lañ waxee ñun suñu commission technique ñun G20 plénipotentiaire yi ñu daje pour que ñoom ñooy bras armé technique eh, bu bu bu G20 ñu waxtaan ci jafe-jafe yi tënkal ñu ko eh, proposer ñu benn préavis de grève donc loolu bi ñu ko defee avant màggal gi ba mu ñoŋ ñu ñu jébbal ñu ko ñun euh, la euh, le secteur généraux membres de la plénière ñun nag ñoo war a daje le 24 incha allah pour que nag ñu valider loolu nga xam ne moom la commission technique bi def ci suñuy amendement ba ñu déposer le préavis de grève des enseignants du Sénégal au plus tard euh, avant la fin du du mois d'octobre donc loolu lañ tënk ñun le g mhm. lan moo tax jamono ji ngeen wax lu ni mel parce que gis nañ ni ci ndorteelu année scolaire bi déggoon nañ leen tam euh, ngeen woote boycott maanaam bank loxo euh, ci ndorteelu année scolaire bi pour jàngalekat yi bañ a dem. waaw loolu c'était pour marquer vraiment euh, une certaine rupture par rapport ak li am année yëpp parce que année yëpp ñu ngi jël benn slogan di ko wax ubbi tey jàng tey bu ko defee Sénégalais yëpp yàpp jàpp ne ubbi nañ jàng nañ. mais ak reportage gëstu yi ñuy def ci terrain bi xañ na sénégalais yu bëri xam nañ ne loolu mun mënta nekk waa loolu mu amul sax loolu dafa amul donc il faut ñuy wax nit ñi dëgg loolu la ñu bëggoon rek mooy débat am parce que ñun ñëpp buñ sañoon ñu ubbi jàng mais nag doo bàyyi ba école ubbi la nga waroon a def defoo ko bàyyi ba école ubbi nga nekk yore say euh, làmmiñ di wër fu ne nga ni ubbi tey jàng tey ànd ak ay organisation de la société civile yu ànd ak gouvernement bi ci naxaate yooyu ak yenn syndicats yi d'ailleurs mais ñun li ñu jàpp mooy ba suñ joon yàlla yi tey boo demee ci daara yi doomu yeeg yu lalu yi dangay gis ne ndongo yi ñu ngi rang di inscrire donc commencé guñ sax jàng alors que chiffres yi sax avancé nañ ko le premier jour pour nax sénégalais yi na saxal seen xel alors que ñun débat boobu lañ bëggoon def pour wane ni loolu amul et effectivement l'histoire nous a donné raison parce que non seulement ñun boycotté nañ le jour de la rentrée de façon symbolique mais même tey jii soo xoolee partout dans le pays buñ ko rek sëf Euh, inondation yi parce que école yu bëri fii Dakar inondé wuñ te jàng amu fa donc matuwaay yan waroon a jël lañ jëlul maintenant nag lii moom lu ci mel ni lan ci matukaay yooyu waaw matuwaay yi ñu war a jël pour ubbi tey jàng tey mën a am mooy dañuy copier rek ci li privé bi di def parce que privé bi ñoom bu école ubbee mais dañuy jàng xamul tax parce que ci vacances yi dañuy fixer euh, euh, seen i seen seen délai de de de réinscription au plus tard le 15 septembre. Mm. le 15 septembre privé yu respecté seen bopp yëpp boo fa demee yow di bëgg a dugal sa doom dañ naan la noo tëj nañ malheureusement mm. suñuy classe fees nañ nga xam ne disposition yëpp jël nañ ko jox nañ emploi temps yi parents yi élèves yi jot nañ ko inscrire nañ euh, defar nañ lépp ba mu yemb 15 jours avant la rentrée bu ko bu état fixé premier jour rek ñoom bu ñëwee dañuy commencé mais nag ñun public bi dañuy toog di tendee fal ak wër di wax. di wër di euh, def ay CRD partout dans le pays te waa yen war a jël

li li jàll bëri na ba noppi. effectivement responsabilité bi mais état bi presque moom la xamul tax parce école yi état moo moo yilif ña koy jiite. Hmm. moom état mooy def redécoupage de l'année moom mooy wax ban jour la ñuy commencé ban jour la ñu dul commencé donc état bu joxee à travers le ministère de l' éducation nationale génn seen note circulaire wax ne désormais bu 20 septembre jotee au plus tard képp koo xam ne war ngaa inscrire ci école yi na nga inscrire. parce que ñoom d'accord nañ sax xale yi amul xaalis boo moo tax parents yi mu ñu leen jiñ loolu xale yi amul xaalis ñu bàyyi leen ñu inscrire en attendant seen i parents mën a dajale. am yu bari noonu la ñuy donc du problème bi du ay affaire xaalis lañ amul moo tax inscrire wuñ c'est pas ça parce que ñàkk am xaalis du tax ñu dàq la ci école yu bëri am na nag ay yoo xam si am nay rigueur yu fa am mais man gëm naa ni bu ñu ko joxee euh, importance bi mu am inscription yi ñu jox ñu def inscription yoo xam si parents yi attan nañ ko bu ñu nee 20 septembre ñëpp war nañoo mën a inscrire élèves yëpp ba nag bu ñu paree nag état bi aussi li mu war a def ci matuwaay yi. Mm-hmm. jox comme euh, euh, accompagnement yi les mesures d' accompagnement yi mu war a def mu def ko bu ko defee comme privé feneen nos écoles yi nekk fii ci réew mi yéen respecté mais le premier octobre. pare nañ seen i cours day parce que tout a été fait avant. donc loolu moom jàpp naa ni bokk na ci tax ubbi tey jàng tey amul mais ñun nag sunu préavis bi ñuy déposé. yëf yi soofantal la wala. waaw ñun li jàpp mooy euh, sunu gouvernement yi moom boo xoolee seen PSE ak fi ñu placé njàng meeg njàngale ak seen 27 projet phares yi ñuy wax rek ci ngay xam ne ni ñoom jàpp nañ ni mën nañoo defar euh, defar réew mi te njàng mi suuxee loolu nag jàpp naa ni vision bu bëri rëq-rëq la parce que réew mënoo ko développé li nga xam ne mooy solos réew ma mooy tàggat waa réew ma ba ñëpp ñoŋ ba ku nekk am xarañte ak yaru bu tax nga mën a eh, nekk ci réew mi am njariñ réew mi loola bu ko suufeelee luñ fi mën a def ak infrastructure bu ñu fi mën a def bu ëllëgee dinañ gis ni dañoo def la charrue avant les nga ne bu ngeen defee seen euh, plateforme revendicative bi ak préavis de grève euh, pour tàmbali ko ndax mën nañoo jàppagum euh, lan moo lan moo nar a nekk ci plateforme boobule ndax yéen ngi wax lu ci mel ni accord yi nga xam ne bu ba léegi état bu Sénégal respecté wu ko. effectivement euh, loolu mooy solos euh, préavis de grève bi ñun lañu jàpp mooy wax dëgg yàlla ay na yoon juróomi at dafa bari. juróomi at gouvernement Sénégal yore ay accords yoo xam da koo déggoo ak jàngalekat yi képp kuy àtte da ngay wax gouvernement Sénégal na wàccoo ak lam diggee woon parce que jour bañ koy signé premier ministre moo jiite gouvernement ñu toog ñu lire protocole bi ci kanamu ñëpp protocole bam dañ ko waxtaane ñaari at. ñu ne ñoom lii nekk ci protocole bi nañ koo doxal te nañ ko doxal te li ci ëpp doxaluñ ko mën naa cee lim rek ñeent wala juróom benn bi njëkk bi may lim mooy li ñuy tuddee lenteur administrative ci tubaab mu yeexital ci këyit yi jàngalekat yi jox ci seen ay acte avancement acte validation acte intégration ñoom gouvernement ñoo jëloon engagement ne dinañ wut ay pexe ba sax ca dab dabaatal ba ñu ne dinañ def dématérialisation lépp di jaar ci xareel xarala yu bees yi ba nga xam ne kenn dootu sax jël ab dossier di ko yóbbu benn bureau pour mu yeex bu ko defee yeexital yi jeex jàngalekat di yor seen i këyit loola tey jii boo demee fonction publique jàngalekat yaa nga ne fa meef loolu beneen bi mooy bor bi ñu ameel jàngalekat yi toll ci téeméeri milliards bañ ko xaymaa ñoom te lu yokkaat na fi doon daan fexe ba fay ko balaa 2020 ñu xool ne nin koy fayee nii buñ continuer nii dinañ dem 2040 te jàngalekat yi war a fay seen du duñ ci jot loolu ñun leen kon nañ wàccoo ak liñ diggee parce que àtte boo fay beneen bi mooy bu ñu demee ba jox leen seen xaalis moom xam ne ñoom ñoo ko moom ñu defar seen système impôt boo xam ne dañuy waat lañ leen joxoon ci loxo ndeyjoor ci seen loxo càmmoñ séddoo jàngalekat yi xaalis ba noppi li ci année yëpp jàngalekat bi jot rappel dootoo dund ndaxte impôt yu métti lañ la defal looloot ñu jàpp ne war naa dakk beneen bi nag mooy li nga xam mooy àllikalet ji parce que li coow li bëri yëpp li déranger président Macky Sall ak gouvernement mooy ñun jàngalekat yi ca 2014 dañ leen ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi dañ cee bot di jàngalekat yi dañ leen cee jaay doole seen ak ak seen yelef joxuñ leen ko loi 61 33 bi nga xam si moom mooy wax ni war a yore liggéeykatu nguur gi daf ne nañ yemale maanaam système de rémunération bi nañ fexe ba ñi nga xam ne ñoo tolloo ay diplôme naam tolloowuñ salaire waaye rubrique yan yan le mooy ay comme ndàmpaa yu dëkkuwaay ak yu mel ne mu ñooñu rubrique yooyu ñi nga xam ni kee ma ngay atte wala kee ma ngay jàngale wala kee ma ngay faj ku ci nekk li ciy sàq sa yelleef loi bi dañ nan leen leen yemale bu paree nag état bi ku bëgg a yokkal yokkal la mais ñun nag suñuy indemnité yooyu ñu am ñun jàngalekat yi buñ jëlee bi ci gën a siiw muy ndàmpaayu dëkkuwaay bi mhm. dañ ñu cee di jox ñu la ndaw loo xam ni suñuy diplôme minguwul ak moom ñun étudier ko nii jàngalekat yi cabinet bi ko def cabinet privé wax ne jàngalekat yi ñu leen di jaay doole résultat yi mi ngi ci table président Macky Sall mais ba léegi nangu ko teg ci table ko ku ci nekk ñu jox leen li ciy kon nag ñun jàpp nañ poñ boobu bu ñu bëggee ren jàmm am ci njàng meeg njàngale du liñ def daaw ak waa g parce que en réalité ñoom def nañ seen i pexe ba ne dañuy yokk benn 40 000 yoo xam dañ ko imposer comme ni ma doon wax ci impôts yi ba jàngalekat yi sentiruñ 40 000 yi mais ñun waxuñ leen woon ñu yokk xam nga ñun lu ñu wax ñun dañ ne nan yemale liggéeykatu nguur yëpp bu ñu jël rek jàngalekat yi de dañuy teg li ñuy fayee liggéeykatu nguur gi ñu xool li loi bi wax ñu xool ku nekk yan diplôme nga am ku ci nekk li ci sa àq ak sa yelleef ñu jox la ko loolu la wax ñun. mais diggante 2014 ba 2019 juróomi at la boobu ba léegi yéen a ngi koy wax te dafa mel ni nguur gi sax fullaalu leen ci loolu ndax lan lan moo tax ngeen jàpp ni ren ji dinañ leen tontu ci loolu ngeen bëgg ndax ndorteelu année scolaire ba léegi def na 3 semaines daanaka yëglu ngeen ndax faale nañ leen sax. waaw ah daanaka faale am ba ñuy signé protocole d' accord 17 février 2014 bii. mais yaa ngi naan sànq am na yenn syndicat yu ànd ak bi ci ñuy def ba ñuy signé protocole d' accord 17 février 2014 boobu ñun jàngalekat yépp ñoo àndandoo nekk wenn say signé ndoo ko gouvernement bi gis ni lii mu diggee mënu koo doxal mu ne na organiser élection de représentativité pour que fexe nu mu féewalee jàngalekat yi bi mu ko organisé ba pare rëq-rëq ya bare parce que ay recours annulation ci résultat yi c'est des résultats provisoires c'est pas encore définitif donc kenn mënul woon a wax ne kii laay waxal waaye kee duma wax kee gouvernement nu profité ci pour féewale ñu moo tax ñun ñuy wax ne ñi ànd ak gouvernement dem di waxtaan ak ñoom te boobaak léegi amul waxtaan wa jeex na parce que signé nañ protocole d'accord ku ci ne lii nga war a def def ko bu ko defee jàmm na ñooy léegi nag kon waxtaan sax jeex na léegi li des mooy doxal léegi nag ci doxal boobu lañ ne dañuy woo ñee leen wax ne fii lañ toll ci doxal bi waaye ñee du leen woo fii lañ toll doxal te ñun ñëpp ko signé woon bokkul ak ndaje bi amoon fan yee sali ñun liñ jàpp moom laa la mooy mm-hmm. wax ni dañuy dajeeg ñee duñ dajeeg ñee di jéem a féewale moo tax ñun ñuy wax ni te même ci protocole d'accord boobu dañoo gis ne dañoo wàññi yenn accords yi parce que 2017 2014 euh, bi ñu signé accord yi le 17 février 2014 bi ñu signé accord yi mais am nay poñ yoo xam ne dafa leeroon nañu je donne quelques deux exemples benn exemple mooy dañu woon les passerelles professionnelles mais du concours examen professionnel la même bu dee 1000 jàngalekat ñoo war a jàll pour corriger injustice bi am ci moyen secondaire nga xam ne ci daara yu lalu yi am nañ ko ci daara yu kawe yi am nañ ko mais daara yu diggu dóom ñoo amuloon passerelle professionnel ñu permettre leen ñoom ñu am ci droit valoriser donc nombre d'années yi jàngale te bañ a dellu université pour def ay diplôme parce que ñoom seen expérience lañuy valoriser mais loolu léegi Serigne Mbaye Thiam ñoo fi ànd ak waa G6 ñu euh, euh, euh, li ñu jàpp mooy benn protocole moo fi am. Hmm. c' est le protocole du 17 février 2014 loolu lañ déggoo ak nguur gi mu tënk li ëpp doole ci jafe-jafe yi nga xam moom la système bi am tey nag état mooy def ay pexe pour féewale ñu ñu ciy profito di wax sunu camarades yooyu ni leen seen place nekkul di lënkaloog nguur gi seen place mooy ñun ñëpp ñu ànd. mais ndax dañuy lëkkaloo ndax ndax dañuy lëkkaloo nguur gi amaana xañ na yéen li ngeen di wax xañ na seen gis-gis moom moo bokkul amaana. non non du gis-gis bu bokkul c'est-à-dire que gis-gis mën ta ba wuute parce que di wax ak gouvernement bi. te buy am a ciy ñëwale ñoom seen bopp ak lim dige woon ak ñun kon leer na. Hmm. léegi nag comme ñoom gouvernement bi wàccoowul ak lim dige woon ñun kon dañ leen di woo ci xeex bi ñu ànd ak ñun ñu jàkkaarloog gouvernement ni ko jàngalekat yi jaay doole bi nga leen di jaay doole dafa war a dakk bu mënta dakk ñu àndandoo ñun ak ñoom ñu xeex waaye nag ànd ak nguur gi googu ñuy def def genre li tubaab du tuddee participation responsable loolu dafa war a dakk parce que jàpp nañ ni jàngalekat yi bu ñu joxee seen doole nga ne maa ëpp doole mais doole ji koy xeexee pour ñoom mm. waaye yoree doole joo xam ne yow da ngay toog di seetaan ñuy salfaañi ak yelleefu jàngalekat yi nga ni tekk kenn déggu la ci lenn ba sax des fois sax ñu gis la ngay tagg ministre bi jiite njàng mi ñun jàpp nañ ni loolu du seen cër mm. moo tax ñun li leen di woo mooy ñëpp ñu àndandoo wan nguur gi ni ko yëfu euh, naxaate yeeg na tappale yi nekk noonu nañ ko bàyyi te jox jàngalekat yi seen gëdd parce que réew mi képp ku fi tekki dara jàngalekatu nasaraan wala bu daara moo la tàgg mm, jërëjëf jërëjëf Dambo sant ko gërëm ko waxtu wi moom moo ñu tënk moom mooy secrétaire général bu CUSEMS authentique bokk ci G20 muy mbootaayu syndicat bi ëpp doole ci wàllum jàng bi fii ci euh, Sénégal kon seenu plénière ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre lañ koy amal dinañ ci dellu si waat ak yéen ci ni mu gën yaatoo ñu wéyal xibaar yi ci wàllum euh, politique benn ponk ndaw yi bokk ci majorité présidentielle nekk ca commune bu Mbour ñoom nag la ñu bëgg jamono ji mooy financement bu tukkee ci DER DER mooy délégation à l'entrepreneuriat rapide waaye it ñu leen di tàggat am na it keneen ku ñu joxoñ baaram tuumal muy benn ministre di Oumar Youm foofu foofule ñu ne daanaka lépp lu ñu amul rek foofee moom moo leen ko xañ ñu dem ci Mbour fekk ji fa Abdourahmane Diallo yu bokk ci majorité présidentielle nekkee ci commune bu Mbour maire ba futtu la ñu daal di def ci ministre Omar Youm ñu jàpp ni seen coordonnateur départemental boobu nekkeew fa dara lu dul féewale ñi dimbali njiitu réew mi. ku si mel ni président Tanor nga gis ko lu mu def Sénégal jàppale président de la république nekk ci wetam ba pare nekk liggéey liggéey bu am solo ci département de Mbour ñu delluwaat dégg ay jeunes yu jege ministre Omar Youm parce que man lu ma jàpp mooy moo leen ko wax loo parce que amuñu fitu di wax yooyu te Omar Youm wax loowu leen ko. ndaw yi nga xam ni toogaanu ñaxtu la ñu amaloon di xam le ni dañ leen bàyyil seeni bopp li ñu bëgg rek mooy ñu jox leen cër. jeunesse bi ngeen gis tey metti woon nañu dem ci naaj bi muy guddi ñu ngi ci ci ci terrain bi di liggéeyal président de la république pour mu am euh, deuxième mandat kon tey suñu génnee. wax li nga xamante ni metti nañu mooy que ndaw ñi joxuñu leen benn considération ndaw ñi respecté wuñu leen tey ba élection jeexee la ñu gëj a gis yenn responsable yi ba élection jeexee nga gëj a woo responsable mu uy la téléphone dañuy woo président de la république parce que ñun dañ fa am lu ñu metti trop ñun waa Mbour parce que tey xool nañ depuis Demba Diop doomu Mbour mosuñu ko dégg ci gouvernement mu dégg monsieur le ministre amul te tey ku ne gis ne résultat yu commune Mbour di am ci élection yi. ginnaaw bi ay responsable daal di yëkkati seeni kàddu ngir ñu dal ndaw yi bokkee APR parti socialiste UCS ak yeneen mouvement de soutien di xamle ni seen xeex bi dinañ ci dem ba jeex. jërëjëf Abdourahmane Diallo léegi ponk bu mujj ci xibaar yi dañuy dalal moom a Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yéene kaay xëye altine gile jërë ngeen jëf soxna Aïda Diallo mi doon seex seexlu ak xilaafam yam na fi ubbi l'observateur journal bi bind na ne xalifa général des mourides di sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru moo ko arrêté ba ñu génnee ci màggalu Tuuba gi ci la sëriñ Muntaxa woolu Aïda Diallo démb ci dimanche ji ca këram ga ca Daaru Minam ci teewaayu sëriñ Basiru Mbàkke Abdu Xaadar sëriñ Cheikh Abdou Latif Mbàkke Lappe ak sëriñ Mustaxin moom sëriñ Moussa Nawel Mbàkke bi Aïda Diallo yegg seen l'observateur nee nañu ci la xalifa bi ne sëriñ Basiru Mbàkke Abdu Xaadar na wax soxna Aïda Diallo li ma koy dayee ba woolu ko la ko xamle ne sëriñ bi nee na li ñu la koy kalaame bari na bëggatulaa dégg mukk ci lu àndul ak sariya mbaa lu génn njàngalem sëriñ Tuuba mi ngi dégg lool wax nañu ne yaa ko def te rafetul ci derub lislaam rafetul ci yoonu murit loolee nag la xalifa bi bëgg nga bàyyi ko ne ko yel banding ci suuf nee na ndaje mu ni mel bëggatu ko sa digg ak moom moom Cheikh Bass bi mu noppee ci la sang bu tedd bi di sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru jël kàddu gi wax ak soxna wax ko li mu bëgg libération nañu ba noppi nag tegal ko ci ne ko ndigal lii ma la jox boo ko jëfewul xamal ne génn nga ci yoonu murit les économies xalifa général des mourides di sëriñ Muntaxa Mbàkke siiru fere na ne Aïda Diallo li Aïda Diallo bëggoon a gàccoo kàlla xalifa cantaakoon loolee ci la sëriñ bi àndul nee na ko na ca génn ba seet te ci ginnaaw sëriñ Saaliw Cuun mi jiite cantaakoon yi l'observateur yokkal ñu ci ne ngir ak neexoo am ci diggante sëriñ Saaliw Cuun ak soxna Aïda Diallo xalifa bi fas na yéene balay gàmmu gi mu woolu leen ñoom ñaar wax ak ñoom moom mi ñu doon dijaat démb ci àndam di soxna Aïda Diallo yéenekaay bi nee nañu bi xalifa bi waxee ak moom bu noppi dane ko maa ngi tuub tey jéggalu bés tey dootoo déggati ci man same lu la neexul li neex l'observateur nañu moo di moom Aïda Diallo Diallo bi mu génnee kër Serigne Mountakha Mbacké Bassirou dafa mel ne ku ñu dóor aw yat fu nekk mu fay xiin xiini ak di wogo soo ko ba ni mu duggee ci watam mu di wata guddi di teg fukki minute ak ñaar ci lay soog a jugee ci kër Serigne ba dem ñu dem feneen wax ci leneen ak ci ñeneen la diggante Ousmane Sonko ak Mamadou Mamour Diallo coow li pënd bi wuréegul Le Quotidien nañu Ousmane Sonko moo dellu siwaat ak beneen kurpañ ab way ndare di mémorandum moom la génnee démb yàkk ca Mamadou Mamour Diallo ak commission commission d'enquête parlementaire bu assemblée nationale lool weñ wu ca daldee da doon defanteeg ñoom bu baax la tribune nañu Ousmane Sonko xaw naa rey assemblée nationale ca mémorandum ba bu nuppi gën dugal Mamour Diallo ci mball gi ba tey ci coowal 94 milliards yi journal Source A xëy nañu wax lu kenn xamul woon ci projet protocole d'accord bi dox ci diggante Atlas ak njaboot gi moom titre foncier 1451 R bi waral wax ji ginnaaw union bi ñu doon amal ci seen biir juróom benn fan ci ruut atum 2018 directeur des sénégalais de l'extérieur Sori Kaba laas nee nañu tama ëpp koy buum jamono ji ubbil yéenekaay bi dañu ko invité woon démb ci rajo Futur Média ci émission Grand Série muy wax ba wax ne président Macky Sall mandaam bi mu nekk mooy mandaam bu mujj yéenekaay bi nañu waxam jooje nag moo neexul gars yi APR yi moo tax watal nañu ko ba seen xol sedd l'observateur mel ne ku naan ñu directeur des Sénégalais de l'extérieur Sori Kaba penati yi mu def ci émission Grand Série ci RFM loolee ci gën a tuuti ne bi muy wax ci doomi Sénégal yi faatu ci bitim réew lim ba mu ca joxe lu ko neex la ca wax chiffre yi mu wax taxawul nañu taxaw ci Vox Populi gis fa Farba Senghor i kàddoom sarse propagande bu parti démocratique Sénégal ba woon di Farba Senghor nee na bu Macky Sall may mukk Abdoulaye Wade muy doxal baa mu koy wax li mu war a def moom Macky Sall la ñu fal mooy njiit réew mi bu mu bàyyi kenn di ko wax li mu war a def baa kenn di ko jiital réew mi Farba Senghor ne bés bu fi Macky Sall amnistie Karim wadd bu boobaa dina mere ku ko deful dara bu ko defee mandat bi mu nekk sax du ko yeggalee jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant leen gërëm leen yéen itam ci àndandoo beeg télévision Futur Média 19h30 incha allah yeneen i xibaar di leen jaajëfal jaajëfal équipe technique bi di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.